woy yi nga xam ne nii Wally sekk woy na ko ñoom Magol ak waa suba teel Makhtar Diop suba teel ak ñoom Sidy Diop ñëpp daal di ñëwaat si plateau yi ngeen ko faral fàccee jàmm bien moo ko taalal de benn 30 laa ko envoyé woon bien moo ko yokk deux deux minutes yi. ah moom la. loolu yaakaar maa ko envoyé lii yëpp. bien moo bëgg ambiance moo tax mu def. yow a de yow a de. alors alors dégg ko ay kàddu yi nga xam ne ni Wally Ballago Seck yëkkati na ko woy waa Subatel Pes ñëpp Magol Demba Waar ñoom ñëpp woy na leen donc ñoom DJ Iver ñoom ñëpp ñoo ngi si biir parce que dégg nga ko euh, ne na nuyu ma ASC e bi boo tuddee ASC e bi nag da ngay tudd Sir Diop da ngay tudd Mata Diop Subatel da ngay tudd Magol da ngay tudd Demba Waar et cetera Assane Ousseynou ñoom ñëpp si biir alors mun na ni euh, Ousse si yow laa njëkkee sax tey cool musique sénégalaise di la soxla quoi. cool plus mm-hmm. àdduna bi yëpp lii lañ soxla. waaw c'est mais musique sénégalaise ñoo nekkoon foofu. Mm-hmm. effectivement ma ni musique bi yëpp lii lañ soxla musique Sénégal soxla ko ñàkk ko soxla bu amee dañuy sant bu amul it ku nekk sa gat fa muy tàngee xam nga ko. Mm-hmm. ànd rek ku nekk sa gat fa muy xam nga ko. ndax mbooloo mooy doole. waaw nekk ay nit rek yaru rek. yarul rek am yar ak teggin faramaareen bi ànd ak ñoom mariasin may jëppeegi ku ci am teggin mu ànd ak yow ku réew mu wax la sa bopp képp nag woon la fa mu mëneeg la mu mënee àdduna noonu la ñu war a ànd rek ay ànd ñu warta ànd sa xanaa xamoo ne moom gétt mën nga koy sàmm nit bañ faa bokk nga jàpp ko dugal ko ci gétt gi yar ko yar waa gétt gi ba mu bokk ci gétt gi mm-hmm. nit kuy defar foog naa noonu ngay defaree fii du lu yàqu rek ñu sànni ko mm-hmm. dëgg la. mécanicien soxlawul oto bu bees ndax du am xaalis. dëgg la de. mécanicien xam mu soxla oto bu yàqu ñu ne panne na li wala panne na li mu defar ko. ngir mu lay voilà ngir mu jëriñ ko. loolooy tawfeex gi bu dee Wally Seck féewuloowu la ku yàlla bind moomoo Wally Seck mës nga gis mu génn tontu kenn déedéet musul am question. musul am musuma yàqu mu jiñ ko nit. moo mhm. koy gars das ko mais musul das kaw kenn. waaw moytul ma ñooñu. moo tax mhm. nag ma bëgg sama jàmbaar ci du Ahmadou Kara. 80 ans la toog Xalifa Nouré nii. kum jàppanteel kóllëre di nga génn wax xoolu bon te tey la la gën te mosuñ ko dégg mu tontu nit 81 ba léegi. de lu nekk nag lañ koy wax. waaye musuñ génn musuñ dégg mu génn tontu nit ay mm-hmm. journaliste sax bu leen woowee conférence de presse ba ngeen bëgg a dugg ci yenn question danaan déet moom doganduróon rek waaye du ko waxal ci li fi ne ci kanam moo tax ma fonk ku dul tontu man j'aime mooy walaw kaana al karaamu fiddatan la kaana al sufuutu zahaba yéen jàng ngeen mooy si la parole était d'argent le silence en serait d'or magum diine bi dañ ko laaj mu ne yàgg naa wax rëcc ko mais mosuma noppi ba rëcc ko la doo ko mu ne musuma noppi ba rëcc ko. Mhm. Wally Seck force la am ci loolu. Mhm. macha te waxoon naa la ko sànq au bi mhm. moonte day am yu ko métti. day am yu ko naqari ku xam nit nit nit nit nit nit nit da ngay taxaw waali di woy di ree nga xam ni kii du Wally Seck. intérieurement. day am. moom dañuy ñëw may def émission tàmbali yi oh, xam nga ne da ngay def émission mais xam nga ne yow nekk ko. te ñu ne dañ koy xam te ñu ne daf ñuy dalante suñu biir. effectivement waaye dafa am droit taux bii. non man man boobu amoo ki xar mi rek moo kii woon. sama woon xar mi ak tabaski. fu mu ne nii moom boo bëggee dégg-dëgg ñun ñëpp amuñu xar mais sant yàlla xam nga lu tax am nañ jom ba sàccuñu. dëgg la ñu ngi góorgóorlu jëluñu yëfu jaamu te foog naa. yàlla bu do yàlla bu dogalee ñu am am yow boo sàccee sama xar dara du la ci fekk ndax dalaa war du sàcc sàcc goo xamante ni sañ naa ngoon ma dem seen kër lekk kook yow dëgg la di ndeysaan <laughs> kon kon sàcc boobu amul effet bokk boobu moo métti <laughs> léegi xam nga loolu amul effet sàcc boobu c'est que moomoo ñun ay jàmbaar leen waaw da gis maanaam link bi ngeen di def ay jàmbaar ngeen fii xale yi Sénégal dañoo am jom nangoo liggéey mhm. dëgg la di gone yi Sénégal dañoo mhm. nañ leen encadré rek di jigéen ñu ci woowaat son excellence président Diomaye Faye yàlla na nga yàlla àggali yàlla nga am tawféex wallahi man de dama laa yéene jàmm ak ndam ci biir Sénégal barki Cheikhul Khadim ak ñu ko àndal ñëpp yàlla nga am tawfiix gëstu leen xale yi bu ajoo sax nañ la jël jëlal taxi nga jël taxi yaag say ministre mm-hmm. ngeen dugg ci embouteillage yi gis booy yi mm-hmm. wallaahi bu ñu leen utalee fu ñu nekk mm-hmm. gaze leen Sénégal ay jàmbaar rek a fi nekk ay liggéeykat lañ ay jobkat lañ dafay bëri dugal ci kër yëpp jigéen ñi ñu yor ay aju nana ñuy min daanu kooku borom jom la ndax bu ko neexoon mhm. bu ko neexoon sol miineem mhm. guddi mu dem almadi càggatu dëgg la ay moromam di defee mhm. bari na fi waaw waaw ñooñ ñooñ di bañ nañ leen saytu teg leen ci code surtout waali fa la nekkee demal këram nii waali dañ xam ni keroog ba daaw Omaro mu ko ko bi mu naan waali munu ko jarul seere te loolu te loolu dem si yàlla sa yaayam moo ko ko ñu ko wax li ngay def nga xam ne yàllaa la gën a baax ñoo ngi def plateau mais Binet toj na li may wax daal lenn la rek mooy musique Sénégal sa nopp yi doo ko yamale fii parce que musique Sénégal ñëpp nañ concentré ku ci nekk da ngaa am sa yoon vas-y Sidi Diop dafa am yoonam mhm. na fexe ba nekk ci yoonam te bu ko kenn demloo ci yoonu Wally Seck dëgg la ku ko koy conseil mhm. nga ko ni Diop da am sa yoon dafa bëla fexeel ba bul jéema a orange. effectivement. waali la yàlla may. Mm. ci Sénégal bu ko neexee am yoon bu bëla. Mm. bu rouge bu verte nattu la def ko boppam ni ko Youssou Ndour amee. Mm-hmm. nga dama naan la bu ñuy wax Youssou Ndour bu ñuy wax Youssou Ndour dañuy wax Youssou Ndour ak woykat yi mm-hmm. bokkul. dafa liggéey liggéey boo xamante ni. c'est la star planétaire maanaam bokkul foo c'est hors boobu. Mm-hmm. kii dafa toll foofu. Mm-hmm. léegi yéen ci seen góor góorgóorlu. Mm-hmm. mooy waral dangeen di ñëw ba mel ni moom. wala ñaan ngeen yàlla sax raw ko. ok xam nga lu tax Sidi dafa def jéego. wax naa ko sànq bi ni tàmbali. ki tàmbali ci ay trente mille. Sinap sat leen. oh kooku kooku Sinap ak yeneen ak yeneen ak yeneen yeneen ba tey ñu ne la zénith. kooku liggéey nga wala liggéey dafa rampe effectivement ngaa liggéey. bu baax a baax mm-hmm. effectivement. ba mais dañ koy dañ koy euh, c'est-à-dire mbég mbégte rek lañ ci am. Mm-hmm. parce que nag euh, Sidi Diop comme Norine li mu ko waxee. rampe na mais aussi fexe na ba wan ni man te keroog bi mu toogee ak Waly euh, wax na ko muy fexe na ba wane ni moom Waly la jël def ko référence am parce yi dafa fexe ba marqué empreinte ci musique bi mu nekk non seulement mais dafa fexe ba bari yoonu boppam Wally bi muy ñëw newul ni man maay doomu Thione Seck déedéet te am na artistes yoo xamante ni fi mu toll nii à travers leur père wala leur leur maman ci la ñuy xamee ni kii kat ci la ñaan nañ ko jàppale parce que doomu diw la muy muy muy muy bralon bi ñuy wax yaa ngi dégg mm-hmm. te ku xam waali loo ko bëgg-bëgg wax ko loolu loo ko bañ-bañ wax ko loolu parce que bi muy ñëw dafa wane ni man je suis waali et ba léegi loolu lay wane loolu lay firndeel mm-hmm. kon kooku que que que roy ko que mu bañ koo roy da koo war a roy parce que nit ki boo koy roy danga koy roy ci lu baax benn bi toog topp mooy waali su wayee Sidi wala mu way waa Matar Diop suba teel loolu war na parce nag gis nañ fi lu ne mm-hmm. xam nga Youssou Ndour dafa togg ak Thione Ballago sekk Bercy 2000 je crois ne ko su fekkoon wax nga ci man lu ñaaw a ñaaw. ma jox ko beneen <laughs> message naa la laa <laughs> yaa ngi dégg. suuf man pour man man la bëgg a baatre sax <laughs> yàlla xam na ne pour man man nga bëgg a baatre luy loolu yaa ngi dégg euh, Thione Ballago Seck Youssou Ndour dafa togg ak moom ci Bercy ne ko su fekkoon wax nga ci man lu ñaaw a ñaaw wala nga dégg ni wax naa ci yow lu ñaaw a ñaaw bu ñu dajee tey du neex muy muy way boobu nga xam ne moo nekk diwoo de de choc ci seen diggante mhm. ba tey moom la ñuy waxtaanee ba coon balaago sekk naan ko l'histoire retiendra mhm. mooy indiwaat beneen beneen c'est-à-dire daf loolu moo nduroowaat parce que waali keroog bi muy toog ak di Diop gis ngeen ko mhm. bu fekkoon kenn ci ñoom ñaar wax nga sa moroom lu ñaaw mooy li ma wax rek kon daje boobu bu amee kersa dina ci am waaye kenn ku ci nekk dangaa simmi say lu nekk xool sa moroom kon tey waali bu woyee Sidi Diop ba way ay musicien wa ñeneen ak ñeneen wala ñu fare ci moom war na parce que fii loolu mooy doxal lépp mbooloo mbooloo mooy doole mais imaginez waali buy xëcc fële amaana dina neex mbooloo dina ñëw parce que am na voix bi mën na woy te rampe na ba am fexe ba am turam Sidi Diop bi rampe na fexe ba am turam tey ji boo nee Siri Diop di nga ko boole ci artistes yu mag yi lan c'est pas pour rien ñu koy concurrencer ak Wally Wally du n'importe qui Sidi du n'importe qui mais lan moo tax ñu leen di concurrencer parce que kenn ku ci nekk dangaa bay sa waar ci wàll wi la yàlla may ci wàll wa nga fare kon bu fekkee ñu ngi leen di concurrencer ñu woote jàmm mooy gën parce que lu kenn mën ñaara ko ko dàq donc man jàpp naa ni te te te Wally lu ko waay mën a waxal xam ne il a un cœur pur li ko li li koy firndee rek euh, ñooñu muy waay am na ci ñoo xamante ne tey ji lu ne def nañ ko di woo ay nit je pèse bien mes mots di woo ay nit am na fi ay enregistrement yoo xamante ne fuité woon na ñenn ci ñoom ñoo ko def pour pour yàq ko moom personnellement et pourtant bu ko neexoon mu ne maa moom sama baat maa moom samay musicien maa leen di fay duma ci way kenn d'accord et pourtant def na ko kon loolu xol bu rafet mënu koo weesu te aussi xam na li nekk ci Sidi Diop parce que Sidi Diop bu amoon ak rëy gu nekk ci moom du def dérangement ak déplacement ak génit lu mu rëy rëy dina ne naa dem seeti ku ma neex waaye duma ma seeti Wally kon ñoom ñaar ñépp mbooloo mooy doole ak ku mën ci doon artistes yi nañu booloo nekk benn animateurs yi booloo nekk benn su ko defee xeexante beeg rayante beeg waxante lu ñaaw bi dakk Sénégal jëm kanam ñu am un Sénégal meilleur. d'accord alors euh, mu ne ni nga xam ne lu rafet la gis Wally Ballago Seck waa Faramaren sax laay wax ñaan nag ñi di waa Subatel euh, bànneex la si képp ki nga xam ne melomaan la mhm. waaye tamit képp ki nga xam ne ni euh, musique Sénégal ñor na la pour ñu daal di koy yóbbu daal di koy jëmale. bitim réew ba ñépp duñu ñu déglu baax a baax pourquoi pas Wally Ballago Seck dem ba nekk raw Youssou Ndour nee na Rihanna donc pourquoi pas donc dina ko doon alors euh, bu ñu paree foofu dañuy dem si leen yi nga xam nii rek si jigéen ñi